abdul Wahab question bi de limi répété mu bari na trop waji day laaj mu ne lan la yàlla wax ci masturbation ak su fekke ne dafa aram lan moy solution bi pour kuko dan def te bëgg ko bàyyi. premièrement waji dafa wara xamne yentibi sallallahu alayhi wasallam musu ñoo wax ñu def ko li nga xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam mom lañu wax ñu def ko mooy yaa ma'shara shabab man istataa minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام من ينجني كيف كو خامني من تاك سخنا نا تاك سخنا باسكو تاك سخنا دي مو غنا مور بيت تي مو غنا نيونال باي مانام اورا كيف كو خامني منول تاك مانام امول خالص بوم تاكي ولا صح امول كوم تاك ولا صح يو ميل نون ناي وور مانام كون سون ديغي لي ني واخ موي ماستيرباسيون Bokul ci lim ñu digal té ñi nga xamantene ñoy yëngatu ci walum faj manam médecine nenañ di def masturbation lu manam manam di ko continuer day indi ay lor yu bari bari ci yaram ak ci walum xel té lu su gëna graw moy mooy day wàññi sax sa mentalité manam li ngay xalat da kay wañ ak tamit katanu yaram day waral tamit nakar manam di triste fo mëna nek té day tax tamit ci koy def manam dootul bëggati dara ci dundam day isolé wu day sonn bokk na ci loraange yi nga xamante ne moom la masturbation di joxe maanaam day tax ngay xalaat lu bon foo mënti nekk far sax mën na di la defloo lu bon te ñu ëpp ci ñu ko doon def mujjuñ takk jabar wala sax suñ demee ba takk jabar ñu si ëpp dañuy def divorce maanaam dañuy fase te masturbation bokk na ci mbir yi nga xamante ne moo gën a danger ci mbir yi lu muy yàq dafa bëri lool te boroom xam-xam yu ëpp dëppoo nañ ne. maa kaana mudirran tibbiyan fa huwa mahzur shar'an ñu ne lépp loo xamante ne da la ko aay maanaam ñu ne la lii soo ko defee dina indil loraange sàngam ci sa yaram ñu wax la ko mu wér ñu ne loolu sharia da koy araamal ci yow macha allah lii moom leer na nañu ne dafa xaraam léegi ki ko daan def te bëgg koo bàyyi loo koy conseil jëlal cinq mbir yi nii su fekkee ki koy def da ko bëgg a bàyyi nako saxal bi si njëkk mooy gaaw jabar su ko mënee bi si di moytu di lek lu bari ak di naan lu bari ñu jëlee ko ci hadith yi sallallahu alayhi wasallam bi mi wax jabar na tak su ko mënul muy wor kon wor bokk na ci li nga xamantene day tax doo koy def bi si toppaat mooy nga moytu lepp lo xamantene da lay ci banex li ci melni musique wala ngay xol ay photo ay xalé jigen yo xamantene soluñ solu gu jot bi si ngay sonné wo ci jaamu yalla té moytu yenn xalaat yi nga xamantene ne da lay yóbbu fu sori manam dila xalaat lo ay xalaat yu bon 5e bi nak moy bi nga xamantene ne ci ëpp solo manam yow ci sa bop nga am décision bu magamak manam mag manam nga né li suma ko bëggé bay donc kay bay ma sha allah lér na trop trop sax di conseil képp ko xamantene da ko doon def mu jëm ko bay ci num gëna gaawé na xamné amul mujj su fekkee abone goo nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi